jëfam ci diine jëfam ci yoonu sëriñ tubaab yi man nag waxtaan wi bëggoon naa ci fàttali rek li nga xam ne moom la Sénégal ameel Serigne fàllu ndaxte yàlla dafa def Serigne fàllu jamonoonteeg président sengoor ci jamono joo xam ne ci lañ dëgëral nation sénégalaise maanaam askan wi nga xam ne ni ko sëñ Sidi Mokhtar ko waxee sànq ñu ci bari bokkuñu xeet wi ñu jóge wala waaso yi ñu jóge ñii bokkuñu diine ñii bokk diine te bokkuñu yoon bi ñu aw sëriñ fàllu fekkee jamono jooju am liggéey bu am solo bi ci def ci ne ko sëriñ basiiru Mbacké Abdou Khadre waxee léegi ci jikkoom muy ci xaj ak xajoo xaj ak xajoo mooy indi tolerance mooy andi ouverture mooy andi li nga xam ne mooy jàmm ci réew ndaxte jamono yooyu ñuy sos senegal li yàlla mayoon sëñ Fallou ci mbooloo li ko yàlla may ci ñu ko déggal bu ko yàlla xiroon mu doxee neneen Sénégal ni mu mel tey du ko mel kon bu ñu nee Sénégal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 thank you